ndaje tey bii dafa am luñ ci tënk liñ ci tënk mooy coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune bu Bambilor dañu daje ci ginnaaw coordonnateur communal muy le maire Ndiagne xam ci réew mi tollu ak situation politik bu àdduna bi bi nga xam ne tey ndajey booloo moo ñu mën a may pour que fi ñu jëm ci wàllu koom-koom ak wàllu sécurité ñu mën fa àgg li nga xam ne nag mooy ay jéego yi président Macky Sall def ci réew mi bi ñu ko joxee réew mi fukki at ak ñaar mu war ñoo tànnal génn kilifa guy porté candidature Benno Bokk Yaakaar ñun commune Bambilor ñu ngi koy remercier di ko gërëm di ko sant ci choix bi nga xam ne def na ko ci premier ministre muy Amadou Ba li tax nag ñu di ko def mooy li ñuy tuddee plan Sénégal émergent mooy nattin wi mu natt pour que Sénégal buñ tolloo fekk deux cinq muy réew mu koom-koomu mu barkeelu mu bànneexu ci wàllu koom-koom ci wàllu sécurité ci wàllu infrastructure muy jumtukaay yi nga xam ne réew mi daf ko soxla ñu xool que ne fukki at ak ñaar yi ci mën a wéele li nga xam ne moom la fi tànnoon loolu la fi defoon mooy le premier ministre Amadou Ba ci loolu nag ñun commune Bambilor ñu ngi approuvé ñu ngi nangu choix bi nga xam ne moom la président def te choix bu mu manti defoon nag ñun commune Bambilor pare nañ pour accompagner ko si ndax nag ay militant ak militante yu nangu kilifteef gi mu nu ilifoon depuis 2012 ba tey di lancé nag un appel di ñaan ñi nga xam ne yàlla daf ñu boole 2012 ba jëm ne tey ñu di leen wax ñoo xam ne dañu bëgg a génn ci làng gi ber seen bopp ñu di leen ñaan ñu xool intérêt wu réew mi intérêt wu Sénégal ndax ci loolu la président tànne président Amadou Ba pour mu nekk candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu di leen ñaan ñoom ñëpp ñu dellu sewaat nu ànd pour que yéene ji président Macky Sall am pour que Sénégal nekk un pays émergent yéene jooju kenn ku ci ne am na loo ci war a mën a béy mais béy bu ci waay war a mën a béy dafa fekk nun ñëpp ñu booloo nekk benn di gën a encourager initiative yi nga xam ne jël nañ ko ci département yi ci communes yi ci village yi ci fu mu mënti doon ci Sénégal pour que ñu bokk ndey bokk baay pour que PSE bi nga xam ne moom mooy suñu programme phare président Amadou Ba man ko euh, ak continuer di dëggalaat suñu engagement militantisme ci ginnaaw le choix du président Macky Sall muy président Amadou Ba di inviter tous les responsables yëpp ak militants yi sympathisants yi yu APR ak coalition Benno Bokk Yaakaar ñu daje bokk ndey bokk bàyyi pour que soir du 25 février ñu ne vive le président Amadou Ba loolu mooy li nga xam ne moom la commune Bambilor benn Bokk Yaakaar tey daje fii ci salle de délibération bi jërë ngeen jëf wasalaam